ginnaaw ba boutique la solution euh, la ñuy àndal moom tamit mu nekk en face Walfadjri tey jii ginnaaw si tey bu ñu wàccee 16h altine lañ fi dikkaat lépp loo xam ne lim nañ ko fi nag garab yi wóor yu ñu saytu la te am nañ ko ndoxum siti am na fi. ñoo man si tawat yi réew mi di réewum Sénégal ak bitim réew bitim réew seen numéro yi téléphone yaa ngi noonu yi daw. bu ngeen xoolee ba gis réew mi nga xamante ni moom ngeen soxla moo xam Italie ak France ak Amérique ak Angleterre ak. yooyu yëpp seen numéro yaa ngi fi bi Gàmbi mhm. nee sa naaj nga woote foofa am nañu garab yii ndoxum siti mu lay faj ba nga wér si carte nag sunu borom am na fii si bitigu solution hémorroïde hémorroïde bu nekk si biir mhm. wala mu nekk si biti di la boo ñëwee bi lay jox si carte nag sunu borom moo koy saafara estomac estomac it boo ñëwee nga jël si ko si carte nu yàlla ku tàq-tàq nga tàq-tàq ku kom si nga kom si ku ku macc si baaraam nga macc say baaraam lu waaye def nga def asma asma it daw leen ngeen jël si ko bu ngeen ñëwee fii si bitigu solution am na fi ngeen tàggoog asma. ballonnement. ballonnement yi daw leen ngeen ñëw ngeen déballonné biir yi. ndax ndax kat biir yi xam ngeen ni màggal a gàmm biir yi sonn nañ ngeen déballonné biir yi ba lu ngeen si def biir yi di ko mën a supporter. tànk yi xaar daw leen. mag wala xale buy saw si loo yëg da taal sab làmp dem sawi ñëwaat daal di tëdd kon nag ñiy tëdd ak nit ñi daan saw di tëdd di xaabaabal nañ xool seenu tëddin mm-hmm. bu ko defee ki nga xamante ni daan saw lal daw yeewu si guddi gi léegi nag xamal ne day yeewu si guddi gi di sawi di ñëw te mën na laa gis nga tëdd tëddin wu ñaaw kon tëddin wi na rafet ne ko na tëddin wi rafet mais <laughs> alaaji yow yow Assane ma laa bëgg a Assane yow duggoo ci néeg jàmbur yi. duggoo ci néeg jàmbur ba xam ni ñuy tëddee. déet xam naa yow da di ubbi néeg xam naa tëddi nii. <laughs> xam saw tëddi non naa tëddi nii yëpp. non xaw nga sa xam nga saw tëddi xam naa tëddi nii champs yi. saw tëddi nii yëpp laa xam. da ngaa dugg néeg neen nit ñi. waaw nit ñi ñuy tëddee. non tëddi nii rafetul. tëddi nii rafetul gars yi kenn ku nekk na muy tëddee. man de ba ñuy nekk fële mas ba ma ñëwee mas naa am. fekk na am bu ñu tëddee defeenu defeenu bu mooy dañuy tëdd defeenu bu bu ànd ak banque. waaw dama ne. xam nga defeenu bu ànd ak banque wow xam nga tëddinu ñaaw. waaw a da nga bàyyi ma wax la xeetu tëddinu ñaaw yi. defeenu bu tëddin wu ànd ak banque ak yaramu neen woowu tëdd baaxul. alaaji tëdd boo tëdd boo alaaji génne ko ci tëdd nii. xam ne génne ko ci. xam ne da ngaa jël say. baal jàmbur ñooñu ñooy wax maa yow baal baal jàmbur. loolu mais yaa waxee tëdd. moom dugg ci da ngaa jël sa lex bi teg ci suuf jël sa oom yi samp ko. juutu loolu tëdd bi ko ne la. loolu moom laa fekk juutu <laughs> waaw gone ma ne ko mën ma jëb tëdd li neexee <laughs> loolu tëdd yi nu gone la gone yi ñooy tëdd juutu nga jàpp taak ginnaaw bi xëcc mu mu tëddaat normal jekk-jekk juutuwaat mën nañ faa yàgg loolu tëdd yi nu gone la mais léegi man mag banque bu ànd ak lemu maanaam tëdd tëdd defeenu bu ànd ak banku waaw mais lii nga lii nga man lii may wax ma man fekk naa la nga tëddee noonu non non non man bu may tëdd njaaxaan laay tëdd sama ñaari loxo yi nii laa koy def sama dënn ah Assane man tey jii ni may tëdd ñun am nañ fi beneen tëddin bu bokkul ak est-ce que xam nga man ni may tëdd noonu bu jii ñi may ñi may defar duñ sonn waaw mais solution fii kon bokkul ak tëdd fii di fi tëdd yëpp non non lii man bu may tëdd sama ñaari loxo yi nii laa koy def sama dënn tëdd ah, ñu ne yor ñu léegi daal kon léegi man léegi say tëdd su ma paree say tëdd yooyu dinaa ko teg man nii laay tëdd léegi mën naa teg say tëdd wala nga ni ñu teg say tëdd tëdd tëdd tëdd liggéeyi liggéeyukaay wala tëdd kër ga maam nekk société bi sonn loolu daggale mos tuuti tëdd mos tuuti ngay di wax wala wàcc tëdd pour nelaw yow sa kër il faut ma defa caméra surveillance ah, sama kër moom doo fa def caméra surveillance waaw <laughs> ah, ba fa nekk doy ba nekk sa balcon bi waaw bu nekk si bunt bi waa léegi il faut man ma def fa sama bosu bopp. waaw ah. boo ñëwee na nga yëglu rek de fital gi de moom chaque jour douze douze coups yaa ngi fii moom. dégg naa 24 bal dong nga am. waaw waaye douze yi moom chaque jour. soro waaje nee na ku ñëw sama kër. 24 maa ngi ak 24 fital 24 bal te am naa <laughs> autorisation ñu ngi koy nuyu bu baax. aywa euh, solution plus alaaji Modou mu xam naa ne daf mel ni miniature bi dañagul de ah. su fekkee ci man boog dañagul solution plus. am na fii si bitigu solution. raay mu sedd. guy fa nga yaakaar ni bokk ci da nga ko njëkkee ba mu xam ne ca la. góor gu néew kàttan. pàcc mu leer nañ. mu ngi noonu nag yéen ñi ko soxla 78 la 426 66 77 wala 75 630 50 50 man nga envoyé audio que man nga wootee ci waxtu wi ba 16h30 incha allahu rabbi